ajjuma ju njëkk ci weeru koor nes tuut ñu daldi julli ca grande mosquée bu Tivaouane candidat Khalifa Ababacar Sall tollu ci njàpp ca noonee la fekkee fidèle yi ci jumaa ja ngir amal jullig ajjuma taalibe cheikh gi mu doon nag daldi ko yóbbu ca rawdu sëñ Babacar si ngir mu daldi fay amal ay ñaan ginnaaw julli ji ñu tàmbali nag visite de proximité yi délégation bi nag dal di jaar ci ay famille yu bëri ngir dal di sàkku seeni ñaan caravane bi nag jóge Tivaouane wutali commune bu ngay Mékhé foofee nekk bërëb boo xam ne secteur informel bi dafa mel ni kenn faydaalu ko ngir nag soppi lu ni mel xalifa Ababacar Sall jàpp ni suñu bëggee ab réew mu suqaliku dañuy tàmbalee ca gox-goxaat yi te noonu la jëlee exemple ICS. gis nga bi ay intrant ci liggéey suñ ko wàcce woon ci dëkk-dëkkaan yi ci lay solo parce que tu produis de la richesse à tous les niveaux bon xale yi dootuñu jóge fii dem Dakar exode rural bay njëkk a mais surtout dem na. bay mbëkk mi yooyu moom dañ doy fàtte. ngir nag politique bu ni mel mu mën ko doxal Khalifa Sall bis bu ñu ko tabee mu doon jiitu réew nee na un milliard la fas yéene baaxee commune bu nekk ngir mu suqali askanam. dañu bëgg dëkk bu nekk commune bu nekk mën régler ay problème primaire école dispensaire lampe terrain de sport faj nit ñi. jël nit ñi jàppale leen ci ay projet réew mu décentralisé naka noonu bu déconcentré loolee la candidat taxaw Sénégal bi bëgg. alal ji wàcc ci askan wi waa askan wi jëriñoo ko gis kenn soxlaatul di ñëw Dakar wala dem ba Thiès pour am li nga bëgg wante fii nga dëkk ci ngaay fii ngay fekkee lépp loolu mooy révolution bi nga xam ne moom la bëgg def ci état wu ginnaaw ngay mexe Khalifa Sall ak Barthélémy Diaz ànd ko itam ak yeneen i responsables locaux ñu daldi leen dalal ca Ndiassane. Serigne Babacar Kounta mi yor kàddug famille bi moo leen dalal ñaanal leen ginnaaw ba ñu ndar képpee li nga xam ne moom mooy seen gan foofee ca dëkk bu sell ba di Tivaouane